man Anta Babacar ma nekk di def ci biir Sénégal mu doyul exemple laneen bum la doy ngëm-ngëm fit jom fulla fayda lu mu la mayul laneen du la ko may 24 mars 2024 24 mars 2024 suñu date la suñu bis la su ma nee ñun mooy ñun ñi nga xamante ne dañu bëgg Sénégal Sénégal jaral ñu ñu fàtte suñu bopp ak suñuy bëgg-bëgg ñun ndax réew mi su ma nee ñun dama naan ñun ndaw ñi su ma nee ñun ma ne ñun jigéen ñi su ma nee ñun liggéeykat yi Sénégal bu ñu bëgg a tabax faw ñu soppi ni ñuy fale bu ñu fi falaatee les mêmes politiciens yiñ fi tàmmal suñuy metit duñ ko fomp suñuy rongoñ duñ ko fomp nañu soppi li ñuy fal le 24 mars na ku nekk fal sa bopp liggéey suñu Sénégal bu ñu toog yaakaar ne que keneen dinañu ko liggéeyal jóge fële regardez la jeunesse sénégalaise lan lañ gën a jooy ñàkkum xëy mais boo bëggee créer xëy cib réew danga koy industrialiser koy industrialiser du ay waxi neen du ay waxi politique ñetti at ñeenti at ñu ñuy wax waxu politique. kan moo ci gis boppam yéen ñu taxaw nii kan moo ci gis boppam kenn gisu ci nañ ma wax nu ñuy développer la région de Kaolack nga xamante ne fii c'était le bassin arachidier Kaolack sax ci xolu nit ñi Kaolack yàlla may ko loo xamante ne boo taxawee ci tànku liggéey di nga développer et régler tous les problèmes de la région de Kaolack. sama xol sedd na sama xol tooy na seen taxawaay rafet na ngeen dëggal seen bopp le 24 mars car le temps de la relève est arrivé.